grand maa ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay bu baax gis nañ tey géej waaye bu xew la da ngay sonn lool si bool tey maanaam li nga ni mooy bëri soxla kattan incha allah mu ngi nga ñëw toog si tey bis bi ñun ni ngeen koy waajee tey gëm naa ne commande day nga soxla. maa ngi jaale bala ma wax dara dama njëkk a jaale sunu mbokk yi wàññeeku ci accident bi am tey ñu nekk ci dëj. décret bi wàcc président jox ko muy trois jours tey soo gisee mu demee nii xam nga loolu moo ko waral ñoo ngi jàlle képp ku ci wàññeeku di masawu ñëpp ñoo ngi masawu ñëpp di jàlle ñëpp ndax dañoo nekk ci dëj waaw ñoo ngi jàlle ñëpp àdduna bépp ñoo ngi lay jàlle képp koo xam ni rek bokk nga ci accident bi wala nga am sa mbokk mu ci bokk rek ñoo ngi lay jàlle di ba ci di président ñoo ngi koy jàlle di nuyu waa Guédiawaye gépp di nuyu waa marché bu bees du nuyu waa Alba Alba maa leen nuyu di leen gërëm di leen sant ndax xam nga ne tey lii am moo waral mu demee nii mu nekk saal tey su woon loolu ca teere ba nga ñuy fekk te tubaarikàlla macha la maar na su xale yi Alba jóg xale yi Géejawaay jóg xale yi Yëmbal jóg fépp ndax tubaarikàlla macha allah lay xam ngeen ko kenn du leen wax kuy maar wax naan ko chaque jour maar lay yaa ay ci luur xale yi wooy nan ko man ma wax ko te noonu la deme li nga koy ñaanal yàlla lafal ko cat te musal ko ci saytaane ak làmmiñ xale la waaye xale bu gëm boppam gëm boppam man du ma ànd ak ragal man du ma ànd ak cuune déedéet damaa ragal gàcce ñimewu ma gàcce déedéet du caaxaan barki sëriñ Bamba Mbàkke li ma la du caaxaan man du ma ànd ak du ma ànd ak du ma ànd ak como li ma koy ñaanal yàlla ko yàlla lafal cat te la li may ñaan autorités yi dëkk Géejawaay laay ñaan man waxuma intermédiaire kenn jaar ci man jox ma dama joxal maa la déedéet damaa bëgg ngir yàlla ak rasuulillaahi Ahmed Aidara yaay meeru Géejawaay yàlla fi yàlla teg li ma bëgg nga ñëw jàppaleel ma xale bi xale bi su jógee Géejawaay gépp ñëw yëmbal gépp ñëw marché bu bees sëñ Assane bàyyi daaru xan ñépp ay jóg caaroy ñépp ay jóg li may ñaan ngir yàlla yàlla fi yàlla teg yaay meeru Guédiawaye ñëwal jàppale Marley keroog wax na la ko nga ne ko naa ci jàpp woo na la ba sonn jëloo ko li may ñaan nga ñëw nga jàppale Marley ndax da koo soxla Guédiawaye la ak Pikine te bëgguñu supporter euh, soq yi ëpp lañu ñu dara Guédiawaye ndax gaynde mer la fanaanoo te moom Marley mii am na lu mu denc man it am naa lu ma denc ah way du ma ko nëbbu non non am na lu ma denc sa biir xol. te su la bis bu yàlla yóbboo la 14 ak jàmm la 14 ak jàmm ngeen xam lool lépp dëgg la nga xam ne gaynde mer la fanaanoo lan koy ñaanal yàlla fa ko li man daal li may ñaan autorité nekk Guédiawaye ñëpp nañ ñëw jàppale ko euh, Aliou Sall moom la fi yàlla tegoon muy maire xale yi ku ci mës a am combat la yàlla jàppale nekkatu fi nag mi ngi bay waar su fi nekkee Sénégal di ko wax ngir yàlla mu ñëw jàpp ci combat bi Lat Diop ñoo ngi lay woo gis na ni ngay jàppale xale yi Géejawaay gis na xale yi ku am combat ni ngi leen di jàppale bëgg naa ngir yàlla ak Rasulullah Lat Diop directeur gis naa social yi ngay def way gis naa ni ngay jàppale damaa bëgg ngir yàlla ak Rasulullah sama waay la Lat Diop sama waay la damaa bëgg nga ñëw jàppaleel ma Marley dama bëgg nga jàppale ko ndax dañoo bëgg jënd ay billets moom soxla xaalis ay billets la soxla ay billets la soxla dama bëgg ngeen jàppale ko jënd ay billets monsieur le maire nag yow la fi yàlla teg yaay maire de ville Amadou Hott mii muy wax nekkul maire u Géejawaay yëmbal la dëkk tamit tey xoolal lu rafet lii mu def dama ko naw yëkkati saal bu toll ni jox ko te mi koy jàppale. ba pare di yëkkati alalam ba pare di yëkkati alalam di ko jox. Amadou Hott loo bëgg yàlla la ko yàlla defal lii ñu def lii nga defal maar la dama cee kontaan te li nga bëgg incha allah rabbi di ko am nit du la ko tee am nit ku ne sa gox nga am nit ku ne fa nga dëkk nga am nit ku ne fa ngay fa tiitaroo nga am kii maar la su jógee ñëpp jóg su jógee ñëpp jóg damaa bëgg ñu jàppale ko. autorité nag Géejawaay ñu jàppale ko maa ngi ñaan ñëpp ku autorité ku dégg sama baat nekk autorité Géejawaay nga jàppale maat la mii waxuma nag intermédiaire man ku ma woo laaj ma ni man am ma jox la ko nga jàppale ko man loolu laa soxla ndax ma moroomam nawleem lay bëreel te nawle waru koo yóbbul dara ca stade ba te borom jom la am na la am na fayda gëm na boppam du ragal nee naa la man du ma ànd ak tomo man du ma ànd ak ragal déedéet damaa ragal gàcce moo tax te bëgguma defet yàlla ko yàlla suturaal gi li na ngeen taxawoon nii gis naa ko xale yu géejawaay xale yu marché bees xale yu alba xale yëm lii tey xam nga ne su dul woon dëj bi tubaarikàlla maa sha Allah fii kenn fi xaj tey marché bees ndax xam naa ne fonk ngeen combat bi te bëgg ngeen combat bi ñoo ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm ba dé wéy naa daal dimanche yé samedi incha allah rabbi la 14 xale yi ñëpp yéen ñëpp ngeen jóg teel a dem istade dooleel seen mbër mu dugg ci biir géej wone fulla at fayda at jom ndax loolu lañ ko xamee question ba de. ban question. géejewaay man lan si combat waaye yow loolu dafa jar laaj man mii loolu day question man kay li ma la wax leer na c'est clair man mii woo autorité yëpp pour ñu jàppale ko xam nga ne bis bi dafa ñoo ñor bis bi dafa am fu ko teg bis bi dañ ko fonk. bis dañ ko fonk bis bi dafa am fu ko teg bis bi dafa ñoo ñor moo tax may woo autorité yëpp ñu ñëw jàppale ko. may woo autorité yëpp nekk géejewaay ñu ñëw jàppaleel ma Marley ndax Marley borom jom la. bi daf ñoo ñor dimanche passé dañoo duggoon Pikine mu am na mu demee la 14 yàlla na ci yàlla yóbboog jàmm yàlla nañ ci yàlla yóbboog jàmm ba tey ba ba tey li ma naqari man jeex ko xam nga ko jarul ma koy wax xam nga ko man daal essentiel la 14 maa ngi bëgg yàlla na ni yàlla may ndam lu sedd guy ci kaw soq ndax bëgg naa autorité yëpp nag ñu ñëw jàppaleel ma maar la man loolu donc laa amuma dara lu may wax lu lool ndax tey ji loolu la soxla loolu la soxla maar la su gesoo gis tribune mu fees dell mu xam ne yëpp ay fan salam ah dina def ba def lu mu mënul nit ki loolu la am nit ku ne fa nga dëkk nga am ñun géejawaay la ñu am géejawaay la ñu tudduroo damaa bëgg autorité ñu ñëw jàppale ko ndax combat bi daf ñoo ñor combat bi daf ñoo ñor daf ñoo ñor damaa bëgg jàppale ko daa duggoon parcelle am nu mu demee ñu daan jël ñu rëy boobu nga xamante mu war a duggal arène nationale waa Pikine nar ko yabaat ni ko booy ñaar ba ci démb la fi jógee am nu mu def géejawaay tey mar la nga war bëre moom la ko janvier nga war a lan nga fi def wala war sa bopp est-ce que tamit combat bi dina yor à 100 pour cent ma ne ma ne moom la mu jëlee parcelle moo ko waa parcelle la ñun la ñu dëkk su dimanche samedi di leen xam ni soq mi euh, soq am na bis te bis bi lu mu ko fonk ñun ñoo ko gën a fonk tey jii xam nga suñu open presse da nga gis mbaru géej waaye yëpp ay teew yëpp ay teew waaye tey di mu demee dëj bi moo waral mu demee nii mu defee ko nii waaye tey su du woon euh, dëj bi open presse lay làng fii képp kuy mbar géej waaye ñu ko fi gis waaye li ko waral dëj bee tax suñ samedi de samedi daal yàggul yàlla na yàlla suturaal ba samedi jàmm incha ñu ñëw. fecc fecc mi bëre bëre bi xeex xeex bi daan daan bi ñu ñëw génne way alba ko nga xam ne maam la asilo waaw man li may tàggoo li may tàggoo moo Ndiaye directeur maa ngi lay wow pour nga jàppaleel ma maat la ci combat bi kooku yow sama xam nga ma xam moo Ndiaye directeur sama waay la borom États-Unis maa ngi lay woo nga jàppaleel ma maat la ci combat bi bu baax a baax xam naa di ko def ndax sama waay ndax kombaa bi dafa metti te dafa yàgg te vraiment combat bi daf ñoo ñor kombaa bi metti na yàgg na moo tax te bi daf ñoo ñor combat bi daf ñoo ñor de combat bi daf ñoo ñor de keroog am na ku ne ma ah da génn da ngay génn Pikine duggaat Pikine ma ne ko waaw waaw maa ko wax dañu duggaat Pikine Pikine ñooy ñan bala 14 euh, gis nga euh, coow li bari na lool fan yi liiru li waral jooy li waral jooy li waral jooy li waral jooy sama xol a fees ba pare ma am mbetteel am lu ma bett ma xam ki doon bëreeg mooy kan di ndaanaan kullu faddalin di sama rakk man bis li ko maar la waxee ndaanaan su daanoo foog coow la bari man li may jooy maa ko xam ku xamul nag xamul waaye li ma doon jooy man maa ko xam man maa ko xam jaruma koy leeral kenn jaruma koy leeral kenn li may jooy maa ko xam mbër mi xam naa fi ma teg te xam na fi ma ko teg waaw mbër mi xam na fi ma ko teg te moom xam na fi ma ko teg xam nga ju bëri dañ naan jooy àggu ko fenn ndax gis ñu rongoñ man noonu lay jooyee man noonu laay jooyee man su may jooy jooyu xol laay jooy jooyu xol te defet bi daf maa bett daf ma metti daf ma te maa soke barki sëriñ Bamba Mbakke daf ma bett daf maa bett waaye nag ba samedi ak jàmm su samedi sama rakk dina ma fay lépp sama rakk ji samedi dina ma fay lépp yàlla na ko yàlla musal ci cat yàlla na ko yàlla mu musal ci làmmeñ yàlla na ko yàlla musal cat nan ko instant yi soxla nan ko jërë ngeen jëf waa Alba maa ngi woo rek moo njaay directeur baax a baax pour nga ñëw jàppaleel ma sama rakk ji ndax daal bis bii soxla nan ko Amadou Hott ñoo ngi lay gërëm bu baax de sant ndax ni nga jàppalee Marley gis nañ ko su la neexoon li nga def nga bañ koo def waaye nag nit da ngay bëgg sa gox bëgg sa réew amuñu lu dul Géejawaay amuñu lu dul Géejawaay ñun Géejawaay la ñuy tiitaroo Amadou Hott pour yëmbal lay présenté yëmbal lay présenté te am na auto yi nekk fi Géejawaay ah nañ ñëw jàppale maar la te yàlla tax dañ koo war a def ku ko def dañ ko war a def ko war a def ndax doomu Géejawaay la Géejawaay la pr lay présenté jërë ngeen jëf waa Alba jërëjëf waa Géejawaay jërëjëf lan non lii du forme du forme de non non xol laay waxee xol laay waxee sama xol moo fees jërëjëf champion